Abdou foofu waxtaan xaalis. parce que xaalis mhm. xam nga Sénégal nag suñ problème mooy dañoo gëmul yàlla ñun liñ naan xaalis noo ko amee baax na. Mhm. moo ñu nar a sànq ñun ñëpp. bari nag ku sa sutura xaweeku mhm. yàlla ak bëgg am tey tey tey moo tax. parce que dañ naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. te Sénégal li fi am kenn xamu ko. dañuy jàpp nit ci lu luñ ko jàppee da doon soppi xaalis mm. dañoo jàpp nit luñ ko jàppee machine la yor di trafiqué xaalis nangam ak nangam mm. jaay dorog mm. bis bu nekk nga dégg fi ay luxóor lépp ngir bëgg am te àdduna bi kenn mënu fee nekk ba am fi lu yàlla namul ci yow wa ma min dabbatin fi illa ala allahi risquha kuy dox ci kaw suuf la nga war a am yàlla la koy jox ku nekk yàlla programmé na li nga war a am ci kaw suuf mënoo fexe fexe ba lekk fi lu dul sa wërsëg. gis nga boo naree lekk lu dul sa wërsëg da dem. li nga war a am yàlla da koo programmé xam nga booy lekk da ngay lekk kem kemtalaayal li nga soxla ba suur jug dem dund doomu aadama noonu la mel li nga war a am lépp yàlla da koo programmé mënoo fexe nag ba am fi lu yàlla programmé wul ci yow moo tax xaalis léegi bari na ñoo xam ni moo tax waxatuñ seen doom dëgg. xale bu jigéen bu xëy onze heures minuit muy génn nga naan ko doom bul guddee kuy génn minuit nga naan ko bul guddee bul bul fanaan kay lañ la war a wax léegi yow nga ñëw indaaleel sa yaay cinquante mille parce que soirée nga demoon ba nga fa demee dangaa fanaan ak góor goo xam ne takku la mu xëy suba may la xaalis nga ñëw jox sa yaay sa yaay ni pat sa papa mi waroon a wax moom problème mu deux mille la am nga ñëw jox ko cinquante mille bu naree wax sa yaay ni ko bàyyi ko moo yor kër gi de ceeb baa ngi nii gis nga digg saako bi ci des te moo ko jënd suñu doom yi amuñu luñ fayee jàng kër gi bu dul woon ak moom ñu génnee ñu gannaaw yàlla moo tax génnuñu kër gi xale yu jigéen yu bari ñu ngi dimbali seen papa ak seen yaay te alal jëñ leen di dimbalee lewul parce que dañuy mbaraan pour dimbali leen dañuy tas yaakaar pour dimbali leen parce que tas yaakaar mooy boole juróomi far faru faru marchand ambulant mille cinq cent yu mu wàccaale nga nga jël ko faru faru <laughs> faru moodu moodu kooku moom ci photo yi photo ay photo rek nga koy jox moom moom du la gis mais moom ay photo nga koy yónnee rek moom tam muy yónnee faru faru faru faru far boo xam ne ci kii bi la nekk showbiz bi xam ne bu discothèque gi amee soirée yeeg yooyu moo lay lijjanti mais yooyu mhm. dafay dem ba yow pour nga jéem a viser sax pour jéem am borom kër sëy te yàlla tax dafay jafe wala boog ku la xam du la takk. yéen nga gis jigéen ñu naan amagul jëkkër amagul jëkkër parce que ñi ko xam duñ ko takk. day nekk ci koñ bi toog fi am ñoo xam ne xam nañ ko. jigéen bu sa réputation yàqoo pour nga am jëkkër du yomb. moo waral léeg-léeg nit jóge Europe takk diw ñu ne waa diw dafa am jëkkër dégg naa a waa ku ko takk ñu ne ki ko takk Espagne la nekk waaw kii kay Espagne la mën a nekk xamu ko day am parce que am na ñoo xam ne buñ la xamee duñ la takk buñ la laajtee sax nit ñi ñoo leen di wax kii diw la mm-hmm. am ñoo xam ne nag téye nañ seen tànk mm-hmm. fi leen seen yaay loo fa lañ yem mm-hmm. nga xam ne dañuy soxla sax 1000 francs mu tëleen mu leer bu ñu génnoon am lu ko ëpp mais du ñu jaay seen ngor mukk am na jigéen ñoo xam ne lu mu metti metti du ñu jaay seen ngor danañu gore toog ba baxaar yàlla ba yàlla ñëw heure bu ñu amee jëkkër xam ni fa la ko yàlla namoon d'accord am na solo sëñ Modou mais ñu waxtaanee tamit ci wàllum rango bu dee mën nañ cee waxtaan parce que temps yi moom moo lëmbee dëkk bi jëm na ci sax sa euh, euh, Mamata Gueye itam wax na ko lu nekk léegi yow léegi ban jàngat démb rek démb rek posé nañ ma ko question Sen TV wax naa leen ko. man xaw ma ko woon. Mm-hmm. mais à la fin lañ ma génneel ay image am wan ma ko. mais jigéen lépp looy def ci kaw suuf. Mm-hmm. bàyyil xel nettali bi ëllëg te ku sañoon boo fi jógee sa yu baax la ñuy génnee parce que yonent bi moo ni uzkuru maxaasina mawtaakum nit bu faatoo yi mu rafet la ngeen xam ko wax leen ko mais bu fekkee faatu nga nit ñi xamuñ ci xamuñu ci yow lu baax lu bon lañuy ñuy génnee parce que moom nga wane loolu la ñu xam ci yow moo tax li ma koy conseillé mooy na bàyyi xel ni àdduna du kër na bàyyi xel ni mag a ngi ñëw na bàyyi xel ni ay archives am dafay des na bàyyi xel ni dul moom mu bàyyi xel ay sëtam ak ay doomam mm-hmm. mu jéem leen a wayalu mu jéem leen a wutal way wu rafet mm-hmm. ci jamono bii mu toll mm-hmm. parce que nit dana tooñ sëtam te ñëwagul nit dana tooñ doomam te ñëwagul xam nga mel ni nga war a mel ñu naan la sa yaay nii la meloon ak sa baay nii la meloon dara jaru ko te pourtant defoo yow mais sa baay moo la ko liggéeyal mbaa sa yaay moo la ko liggéeyal na bàyyiwaat xel ci yàlla comme dégg naa nag ni def na vidéo jéggalu nit bu nee maa ngi jéggalu mënoo ci dara surtout Sénégal mm. Sénégal ngay def njombe ñëpp di ko coow ñu ne la eh ma jéggalul ma boo jéggaloo ñëpp xolal ñëpp pare ci loolu la ñu gëm mooy suñu culture da ngeen ku tooñ sax ñu naan ah na jéggalu bu jéggaluwul day ah na duñ ko baal na jéggalu léegi nag mu am na ful la day xëy kaalawu rek toog ne mbokk yi maa ngi jéggalu ñëpp rek ñu jéggal ko mu jeex waaye comme nee na mi ngi jéggalu ah nañ ko jéggal te comprendre ko rek mais est-ce que liggéeyam boobu comme exemple ko gars yi defee ne carrément. mais xam nga léegi nit ñi bëgg a siiw sonal. Hmm. Sénégal bëgg siiw ak bëgg buzz moo sonal ñëpp. léeg-léeg ngay gis kuy critiquer sax koo xam ne moom gëmu ko mais bëgg ñu partager ko moo tax. léeg-léeg nga gis kuy wax ci nit lu bon gëmu ko bëgg ñu partager ko moo tax maanaam siiw ñu xam la ñu ne diwa ngi nee hmm. dafa jaral nit ñi lu nekk hmm. xanaa moo léeg-léeg nga gis jigéen di dem soirée sol sol lu sexe lu bon loo xam ne fu mu jaar dañu naan xoola diw looloo ko ci neex loolu la bëgg mu xëy suba journaliste yëpp affiché ko xoolal robe tëni bi sexe bi diw sol xoolal robe tëni diw bi sexe bi bi mu sol nangam nangam xoolal looloo ko ci neex bu ko defee xaritam yi di ko woo alu yaa ngi wàccee neb bi yow de fi nga génn sa waaye sa ay ay ay jànq jànq ñeme nga cadde ay jànq yooyu lañ ci bëgg yooyu lañ ci bëgg di la woo nan la jànq ñeme nga cet ak nangam nangam ngay lappax lappaxi mel ni muus mu tawte loolu moo leen ci neex mais bàyyil xel ni bés bëgg succès beeg lu ndaw loolu nga ciy am mm-hmm. image bi dafay des YouTube moom ak Google am nañ kóllëre kóllëre goo xam ni loo leen laaj ñu génnee ko boo bindee diw <laughs> image am yooyu mooy njëkk a génn boo bindee soirée diw mm-hmm. image ba ni fàng dafiy des vingt ans du fi jóge ëllëg nag da nga fiy jóge génn àdduna nit ñi di wëri sa foto bu baax pour ñu esthété ko mais day jafe parce que léeg-léeg sax jigéen bëgg laa envoyé photo bu bu bu sol lu yiw mais day am problème danaan photo bu ma sol lu yiw ma xool photo bu ma sol lu est ce que bam naa ko man yii photo bu ma sol yi suñ gàmm gi soloon naa benn mi ngi noonu hmm. dañuy dem ba duñ ko tàmm duñ ko xam léegi nag yooyu boo ci nekkee pour nga bàyyi ko day jafe hmm. ngay dem ba euh, nit ñi dañ lay jay ngay gën a xaabaabal di gën a wane sa bopp te am na góor ñoo xam loolu lañ bëgg hmm. di la jay ngay lu ne nga jëm koo créer mm. mais lu mu neex neex bàyyil xel ni dee ngi ñëw mm. bàyyil xel ni àdduna bi kenn saxu fi ñëppay dem bàyyil xel ni say sët a ngi ñëw bàyyil xel sa way jur bàyyil xel say dëkkandoo mm. bàyyil xel itam ñiy xool sa yaay am bët benn bët bu ñu koy xoolee sagalal ñi nga am ñëpp ba lépp lay def ci àdduna mu doon lu rafet waaw parce que gis nga seytaane nag yenn saa yi bu la duggee da dem ba ba nuroog dof da ngay dof seytaane moo moo efficace que seytaane dañu woon yàlla sa gaañ yi dinaa leen am am ordre mm. ba duñ la bàyyi xel summa la aatiyannahum mm. min bayni aydihim mm. wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim iblis dañuy yàlla sa gaañ yi damay taxaw ci seen kanam taxaw ci seen gannaaw taxaw seen ndeyjoor taxaw seen càmmoñ kon mooy nit amatul espace bu mu rawee bu ko defee nag ma naj ko bëgg la gis man rek lay gis moo tax li muy wax léeg-léeg man maa koy wax loo man maa ko naan yàlla amul maa ko naan moo nit ñi di wax maa ko naan ay doom ak ay ay àdduna ak àdduna xoolal loo loo toll nay neex looy romb rek nay neex passage la yooyu laa koy gëm loo loolu lay gëm mais dangay dem ba mu yàgg nag beneen xel mi ñëw parce que nit da ngay jekki xel mu xelu iblis mi ñëw dugg la jekki jékki nga génnaat ci beneen xel mi ñëw ngay xalaat moo tax ngay def dara rek réccu nga bëgg def benn affaire xinti woo ko def ko tuuti réccu man de su ma yëgoon lii duma ko def te pourtant bi nga koy def da nga kaa yàkkamti di xërti xërti mais dangay ngay pare rek réccu lan moom ma jaral lii cinq minutes yi ma nekk fii wax waxi dof yi def yëfi dof da ngay réccu léegi nag boo tolloo foofu nag yow lu ñu lay wax doo ko gis mais ñoo war a jël seeni matukaay ci réew mi fexe ba ku fi def lu méngoowul ak diine te fësal ko ñu jël engagement ci yow parce que fii kenn sañu fee taxaw mm. di jaay génnee ko facilement naan sama kër am na ay keesi dorog ñu leen jënd kenn du ko def ku fi saaga woon président de la république doo yendu ku fi saaga woon soxnaam doo yendu ku fi waxoon lu ñaaw kenn ci état bi gouverneur mbaa keneen doo fi yendu waaw segam ñooñu kenn du leen wax dara yendu pourquoi ñun nangu ñuy ñuy ñuy ñuy fowee diine ji di def loo xam ne diine bëgg ko di ko fësal ñu bàyyi leen ci moo tax réew mi il faut ñu jëlaat ci engagement.